asalaamaaleykum wa rahmatullah yéen kilifa yi fi teew sëñ Mor ak sëñ ñi àndal ñëpp ñu ngi leen nuyu di leen siyaare di leen sant seen taxawaay bi ngeen taxaw ci liggéeyu sëñ Tuubaa bi ci yàq liggéey ak yaatal gi leen ci ñaanal ndam laan da ngërëmul sëñ Tuubaa hmm, di ngeen sant sëñ Muhammadul Muntaqa di ko ñaanal taxawaay bii mu taxawal sëñ Tuubaa jiite njaboot gi yàlla yàggal ko fi te may ko ndam tam am ci ngërëmul sëñ dañu ànd kooku moom ginnaaw loolu nag xam naa kàddu yi mën naa bañ a gudd ngir li ci am solo hmm, li ci ëpp wax nañ ko dañuy seer indi ay seer yoo xam ne jëmmi daara ji da koo aajowoo ci anam yu bari ndax fii suñ Mbàkke dafa am mbind ci batale yi nga xam ne moom la Sëriñ Tuubaa batale woon bëgg ñu defal ko ko yett la woon moom la suñ Mbàkke ak dem Màkka boo xam ne gi naal na ko waajal ko ba am ñum àndal woo leen ba wax leen ko récits yi ca xew yëpp fokk nañ ko xamandoo googee joojee naal woowee naal cheikh Mouhamadul Fadal ak maam cheikh Anta ak sëñ Mbàkke Buso matalal nañ ko ko la ca topp mooy jumaa ji jumaa ji tàmbalee ci cheikh Moustapha ba fii ñu toll ba ci Cheikh Abdoulaye ba ci Cheikh Mamadou Lamine Cheikh Sidi Mokhtar kenn ku ne jëf nga ci jëf ju ràññ ko bu ñëpp gis mu àggee ci loxoy Sëñ Fallu ak nam nañ ko nam doxe ak ba ci la ci def ci yokk ak daara kaamil yëpp muy naalu ñaareel bu ñetteel bi di daara ji nga xam ne moo ñu tax a jóg daara ci boppam dafa bind wax ne madrasatun takunu rahlatu Sénégal ilayha fil ulumi al arabiyya wa alatiha moo ko waxal boppam waqad ahadda laha kutuban laa tuujadu inda xayri ci mbindum suñ Mbàkke bu solo loolu yi jóge wax na daara joo xam ne senegal Sénégal ak biti Sénégal ñëpp dañuy laxas jëm si ngir sàkk xam-xamu arab ak sariya ak jumtuwaay ya ñuy àndal te nee na sëñ ku tedd ki waajal na ko ay téere yoo xam ne ci yooyu jamono kenn mësu koo fekk fu dul fi sëñ bi téere yooyu ci nettali wax nañu ne bañ demee ba ba moom diir këyit moom dafa yomba yàqu dañ ko seetee fekk këyit ya am am am ay ayib ngir yàggaay ba ak saytu ba mm, desee agsi ci suñ jamono ji niñ koy saytoo ñu ñu daal di koy def foofu nga xam ne mooy teenu Basiru Géey bi moom teenum Sëñ Abdu Xaadir bi bokk julli Sëñ Abdu Xaadir daa defal julli ndox mi nga xam ne ci lay mm, jëfandikoo yëru lim fi nekk teen boobu mi ngi ci penku jumaa ji ci wetu penku barabu Sëñ Abdou Xaadir bi digg mag barabu Sëñ Murtada téeram teen boobu fi ne wax nañu yi foofu lañ ko def ko fi ginnaaw bi ñu bënn fi teen bi dégg naa ko ci ay riwaay yoo xaw bari Cheikh Mouhamadul Muntaqa nag yàlla ko ndox saalihaatul awlaad min mutimmaati saalihaatil waalidayni hmm, tawfeex ji ko yàlla defal bi mu agsee fekk naal yooyu ku ci ne ñu dox ci lañ ca dox ba mu agsi fii mu agsi naalu ñetteel wi nag euh, ji li tax ma naalu ñetteel sëñ Mbàkke daa bindu wax na sëñ Mbàkke Buso bindu wax na wa innama sakata anil madrasati li kawniha taabiatan lil masjidi fa qaddama talabahu ala talabiha li nga xamee ne bi daara day topp ci juma wala jàkka bañ ko defalee naalu jëkk ba muy aj gi kilifa yi tàmbali Cheikh Moustapha ba ci suuf ñoom ñëpp ñu yëngu ci jumaa ji ba mel ni mu war a mel Cheikh Mouhamadou Mouhamadul mu tedd mi yàlla dogal mu ñëw toog al aalimu taqiyul awra borom xam-xam bi nga xam ne ko ragal yàlla tasam al imaamu murabbi alladi laa yazaalu daa'iya salaaxi wal falaax di limaan di nga xam ne ab yarkat la ndax jëmm ji rek day yara boo ko gisee rek ah, doon defar sa bopp da nga defar sa bopp ni mu mel ni mu moom di woote kat bu jëm ci lu yóbbi nit ak texe ak yiwe te koo xam ne kii daa tànq ci leeri barkey Sëriñ Tuuba yi te doon ko dégg junj yi nga xam ne moom la moom la sëñ bi jëm ca mu daal di xam ne nag naalu ñetteel wi mooy daara mu dikkee mu daal di koy song rek def ci lim ci def ci ay milliards liggéey ko moom agsi fii la wax ne hm, moom laal suuf na ñëpp jàpp moom laal suuf loolu moo di bu ko tabaxee ba mel nii dañuy ñaan mu jiitu ko lu yàgg te it eh, noonu yi Serigne Touba waajale woon téere yi ñu la waajale ñi nga xam ne ñoo ce ñoo cay liggéey ndax sëñ bi moom bàyyiwul dara lenn ne waajal na ko ku ci nekk te di ci yëngu rek sëñ Tuubaa la ci boole loolu moom yal na yàgg lool te ñu liggéey ci kanamam daara ji liggéey bu yàgg lool na ko sëñ Tuubaa bëgg loola moo moo andi daara ji feeñe ci liggéey bi feeñe ci ay loxoom ndax sëñ Abdu Lahat mi nga xam ne ginnaaw bu sëñ Fallou doxee loolu mu dox moom moom Cheikh Anta ak sëñ Mbacké Bousso bi bi bi liggéey bi àggee la tàmbalee ci moom ba ci suuf ba ci Cheikh moo moo xam Cheikh Sidi Mokhtar ku ci ne jëf nga ci jumaa ji loo xam ne lii lépp lu ñu teg bët la daara ji daal di ñëw nag suñ Mbàkke nee na woon faqat dama talaboo ala talabiha mu jiital yooyu ci sàkku ñu agsee nag mu dib cëram yàlla jàppal ko mu def ci lim ci def ba mel nii mu mel ñu toll ci war ko ubbi nag ubbi googu yi la ñuy yëgal mbooloo mi mooy ni nga xam lañ ko waxee dafa ne ci diggante yaari xew-xew xew-xew poroxaan ak xew xew kasu rajo ba ba tax na danañ dinañ ko war rek ku ci mën a teew rek nga teew ci loolu dal mooy li nga xam ne hmm. moom la ñu bëggoon a wax ci ay kaddu te xam leen rek am nañu rafet njort bu baax ci suñ toogoom lépp lu mu junj moomu joxañ ko day am kon nag bi sëñ Blaat jógee daal di fi nga xam ne fi la ñuy def daara ci liggéey ko ba def benn bunt sa Cheikh Salihu ñëw dox ci lim ci dox Cheikh Cheikh Abdul Qadir yor cërub jumaa ji liggéeyal ci Sëñ Tuubaa lim ko ci liggéeyal ñu topp ci moom kenn ku ne jëf li nga jëf mu des nag daara ji muy cërub Cheikh Mouhamadul Mountakha yàlla na yàgg ci ay loxoom mu liggéey ko ba mel ni mu mel ñu ñaan nag ñu yàgg ci bis ba ubbi ko ci bismillahi rahmaani rahim njaboot yi liggéey ci sëñ def ci loolu lii moo sëñ bakk bi soo waxoon ne daara joo xam ne ji dana laxas jëm Sénégal wa ma xawla ak la ak li lépp ba bitim réew lu waay soxla ci xam-xamu diine mbaa xam-xamu arabiya ay jumtuwaayam ak lépp am na fi fàggu nañ ko kon nag ñoo ngi sant sëriñ bi te di ko ñaanal yal na fi yàgg te wér ñi koy jàppale it yal na leen yàlla defal ndam ñu ànd ak sëriñ nu nu ànd ak sëriñ bi li mu naal yàlla may ko wér ak ko yàgg ba mu def ko ni ko bëggee ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum